Euh, ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi salaa salaam sant yàlla ci lii nga xam ne borom réew mi muy président de la république may nañu ko ngir ñu mën a ubbiwaat barabu jaamukaay yàlla yi loolu moom kontaan nañ ci bu baax de ci sant sunu borom ah li ñu santaane nag fas nañu yéene def ko nit ñu ko sante moo di jël ndox boole eau de javel ak lépp loo xam ne dana setal doomu aadama ñu def ko ci taxawal ay nit ci bunt yi ñu yor ko di fomp seeni loxo képp koo xam ne ñëw nga te yoroo masque dinañ la jox masque waaye ku yorul masque doo dugg ci jumaa ji ba noppi eh, bunt jumaa ji mat na ñeenti bunt waaye ci dugg bi dañuy tëj yëpp ba mu des benn bunt benn bunt boobu nag fi la ñuy taxaw ku dugg ñu jox la gel nga laal boo yorul masque ñu jox la masque nga dugg bu ñu jullee ba noppi nag ñu mën a ubbi yeneen bunt yi ci des nit ñi gën a génn dem loolu daal moom la li nga xam ne ni moom la kii fas nañu yéene daal lépp loo xam ne ni kër docteur wala nguur gi santaane nañ ko ngir ñu mën a doxal liggéey bi ñu def ko te yàlla tax. biir jullikaay bi itam ni ñu ko sante diggante kenn ku ne ak moroom un cinquante lay bàyyi noonu la ñu fas yéenee taxaw am na ñoo xam ne ñu ngi taxaw ngir sellal liggéey boobu ñu ngi nit ñu ngi ci biir jumaa ji waaw bëggoon nañ tam pour lu gën a yombal liggéey bi gannaaw mbooloo dañu fiy ñëw ñu ngi ñaan état bi ñu defal lieu de culte yi ay yoo xam ne bu ñu ñëwee ñi nekk ci bunt bi mën nañoo détecter kuy dugg ci biir ba xam ndax moom mii dugg am yor na doomu jàngoro ji wala déet loolu moom bu ñu ci mënoon di dimbali dana baax.